suñu gëstu yu bëri ci loo xam ne dinañu jëriñ ndax fekkee ne fiir la rek borom bi subhaanahu wa taala moo njëkk a fiir du doomu aadama moo fiir rek de waaye borom bi ci boppam moo njëkk a fiir ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na laysa ahadun aghyaru min allahi subhaanahu wa taala mu ne amut ku gën a fiir borom bi nga xam ne moo sàkk mbindeef ba nga xam ne man fiire fiir jikko la ci jikko yàlla yi sifa la min sifaati Laahi subhaanahu wa taala waaye nag sifa yooyu nag dafa am ñaari xaaj borom xam-xam yi xaaj neen fiirange wala jalousie muy ñaari xaaj ñu ne riiratul xubb fiirange ngir mbëggeel ah riiratul xeq mooy fiiraange ngir meññeef ban dafa am fiiraange mbëggee am fiiraange meññeef ndax fiiraange dina dem ba jur meññeef dina dem ba jur soxor dina dem ba jur kañaan dina dem jur loo xam ne ne dina lor nit ñi ba mu loo xam ne ne tey bu toogee tuuti daal di ëllëg di xalaat ne nii ma def lu ko ci dugal ak lu ko ci xiir mooy moo tax. borom xam-xam yi ñu ne xiiratu shuur mulim ñu ne fiiraange yëg-yëg bu métti la ci doomu aadama yëg cay ne li maa bi ci ku fii ku bëggut fiir ndax ku bëgg rek mooy moo tax ñu ne fiiraange warta ëpp mu ngi mel ni benn garab bu tuuti soxla ndox nga koy roose boo koy roosee nañ ko war a roosee ci limite waaye bu ëppee rek garab bi mën na dee wala mën na koore waaye fiiraange loolu mën na ci lu wane fiiraange ba tëb bu ëppee gaañ borom ñu ne lu ëpp 10 pour cent wala ñu ne fukk yu nekk rek ñaar yi tàqalu koo neen lu leen lu leen mooy fii fiiraange kër nekk rek boo ko ñu ne insaan rayuur axyaana yakun wax ñu ne doomu aadama bi nga xam ne la la fiir fiiraanga boobu mën na koo mu nekk nit ku bon nit ku soxor nit ku bëri problème ndax ndax ba bi nga xam ne yaa ngi koy fiire bi xam ne yaa ngi fiire heure boobu noonu dafa fekk ne yaa ngi tiitaange ndax nit ki bu tuutee ci dara rek mën na koo jural mu fiir ñu ne nit ki bu tiitee rek loolu mën na ko indi fiiraange mu ngi mel ni nga am sa soxna gis ko mu sol ba rafet génn dam ci xew wala nangam na ko ah lii nga sol kat doy na waar fekkee ne dafa seer lool wala bu fekkee ne dafa yaraax lool loolu mën na la cee indil fiiraange goo xam ne mun nga sikki sàkk ci moom te nit ki boo demee ba am confiance moom waroo sikki sàkk ci moom fekkee ne lii daf laa naqari saafara ko ci commencement bi na ko lii la soob neexuma bëgg naa nga changé ko bu ko changé boobaa jàmm am waaw boo ko bàyyee nga am jotul ñaaw bu génnee taxaw ak góor nga foog ne leneen la fekk du leneen fekke na waxtaan la rek ndax yàlla moo bind jigéen moo bind jigéen ak góor daf jamono ji muy jamono communication waxtaan foog kaf léante yooyu bu ci amee fekkee ne da nga am réer bu ëpp boobaa mun nga def loo xam ne ni mu ñëw fekk ci leen lu tax nga wax kii nga dóor ko nga def ko bu nga sewee problème bi commencé màgg nga judd boobaa fase am ci wala leneen am ci moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laysa ahadun aghyaru min allahi subhanahu wa taala amul ku gën a fiire borom bi nga xam ne moo sàkk mbindeef fiiraange nag jullu bee ci kaw suuf fiiraange min zamanil xadim fiiraange ca jamono yu jiitu ñuy sàkk àddina jalousie yàlla amal na ko lu jiitu muy sàkk àdduna ndax yàlla ba mu amalee iblis mu jàmm ko ay at yu bëri ba mu demee ba sàkk yonent yàlla aadama na ko na ko sujudal ana lan la ko aadama ana la ko lan la ko iblis wax ana xayru minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin ah yow yaa ngi wax na naa sujudal aadama man maa gën aadama ndax aadama na koo bind ci bant man na maa bind ci safara te xam nga ne safara moo gën suuf wala moo gën bant nga xam ne fiiraange lu jiitu am ak àddina la ak lu jiitu am ak mbindeef yàlla yi la bon mu nekk loo xam ne lu jiitu la bam bañee alalu la ko yàlla jox yàlla daf koo tàdd te ngeen ne iblis malaaka la woon comme moo gënoon a jege jibril waaye ba ko yàlla tàddee daf koo laan mu sori mu indi ko muy noonu yàlla bu gën a màgg ci kaw suuf loolu fiiraange moo ko ko yóbbee waaye bàyyi war na ne iblis dafa ñàkk xam rek dafa xamul rek waaye tafsir na aay boobu ne ñu iblis lan la wax ana xayru minhu xalaqtanii min naarin wa ah, wax bi mën naa sàkk sàkku ko ba la sàkk def waaye jumte bu rëy la daf ko wax gannaaw bu mu waxee ne xalaqtanii min naarin wa xalaqtahu min tiin dañ maa bind man ci safara biñ ko moom ci suuf te gannaaw yi ñaan yëpp yàlla leen bi dëkk man bu la waxee defal dara rek na ko war a dafa war a tëdd benn baat kooku mooy iblis bi nga xam ne yàlla tax na ko ci yërmaane yàlla bi nga xam ne li mu coowoon muy jaamu yàlla boo xam ne amut mooy yàlla moom nag nga xam ne fiiraange ñaari xaaj la xiira mahmuda yuhibbuhu Allahu tabaaraka wa ta'aala wa ghayra madmuumin yukrahuhu Allahu tabaaraka wa ta'aala fiiraange bu bon boo xam fiiraange ñaar la fiiraange bon boo xam ne ne yàlla na koo bañ ak fiiraange bu baax boo xam ne ne yàlla na koo bëgg ndax borom bi wax ne sànq ne moo gën a fiire képp kuy fiir lu waral borom bi di fiire mooy ne yàlla dafa bëgg inna allah yuhibb yàlla dafa bëgg nit ci nag bu bëggee bu foog mu fiir waaye yàlla lu tax mu fiiree nii léegi mooy bu leen jógee leen baax tere leen bon ñu bàyyi loolu def lu leen yàlla tere loolu moo tax fiiraange di am am na ak sar man bi xibbak wa rabbuna subhanahu wa ki nga xam ne moo la gën a bëgg yow mi nekk mooy borom bi nga xam ne moo la sàkk sàkk la ci ay melokaan yu rafet may la taar may la xam-xam may la doole may la yëpp ne la tere naa la tuux tere naa la naan sàngara tere naa la njaaloo tere naa la yii yëpp waaye tere naa la bokkaale yàlla nga ñëw di tuux wala di naan ba sa kanam bi ki nga xam ne ne moo la bind ci melokaan yi rafet yooyu teral la loolu yëpp pour sàmmal la sa sa wér-gu-yaram sàmmal la sa kàttan sàmmal la sa doole sàmmal la sa alal ñu ne dee naa ko def naa resa ko naa naa def naa def naa njaalo yii mu teral la ko boo paree nga ko bu mu fiire moo tax mu jaaxaloon yéen yéenant yi bu ñu waxee ne yàlla dafay fiire loolu doomu aadama yëpp la war a jaaxal borom bi nga xam ne kenn xamul fu mu nekk te mu ngi fépp te ñu askanal ko ne moom xayur la te moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayur la moo tax mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna allaha tabaraka wa taala yaxaar wa xiiratu llahi hiya an yati abdun bima xarama allahu alayhi moo ne yàlla bu nufuur la alal ah, tax muy fii fiiraange mooy jaam bi indi safaan bi nga xam ne moom la ko digal mu digal la ngay or di julli joxe la nga ne déedéet naa naa bañ a julli naa bañ a or naa bañ a naan la ànd booba foog mu melal mu ñëw na la yàlla kenn la kennal ko yàlla benn la amul doom amul xarit amul soppe amul lenn soppe rek la am ak ay xarit yow nga ñëw na di déedéet yàlla ñaan la comme si jamono jii ñu ne tey la ci at bi muy Isa ñu ngi wax ne ne yàlla la ñii ne doom yàlla la te xam ngeen ne loolu amul ndax yàlla boo liiree su suura Allahu ahad rek loolu dina la mën dana yàlla kenn Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad loolu du si tem duñ cee xuus waaye ni ñu siy tànn dina ci ñëw mooy ne yàlla dana fuye am na ay bàkkaar yoo xam ne mënu du ko baale moom bàkkaar yu oyof yi da koy baale waaye mu ne am na loo xam ne du ko baale mooy lan mooy shérif du koy bokkaale lu nekk yàlla mën na koo baale mën na sa bokkaale bon nañ moytu bu bokkaale bu baax a baax a mm-hmm. rawat na ci jamono ji ñi ngi feet 31 nee naa ba koog ñoom feet bi di def lu nekk te ñoom boo sa ñu seen feet ñëwee bu Tabaski wala Korite wala leneen ñu ci ànd yow kon nit ci dëgg dafa war a maal jullit ñu ko war a xamee mooy maal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al ghira sifatun min sifatillahi sifa la wala melo ci melo yàlla yi yàlla buur bu karim la buur bu rauf la buur bu rahim la buur bu bëri la buur bu baax la war nga koo rey ci ci yooyu ci baax ci jikko yooyu nga xam ne yàlla jikkoo na ko waaye riira bi ñu wax riira bu emu la bu diggu doomu nit ki da ko war a nit ki rek il faut mu fiir waaye fiiraango bu ëpp lenn rek lay jur mooy xasar mooy keñaan moo tax tam bii daanaka lu ci ëpp keñaan lay doon mooy keñaan baaxul fiiraango bu ëpp nag moom ñëpp ñu ne d'accord ne ci ne booram ak borom xam-xam yi ak boolem brasibe yi d'accord ci ne fiiraango bu moom keñaan lay indi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ma min ahadin a'jabu min allahi tabaraka wa taala lidalika xaramat fawaaxish wa qaala sallallahu alayhi wa sallam ya ummata muhammad ma min ahadin a'jabu min allahi subhanahu wa taala an yasni abdan aw tasni amatan mu ne amut benn yéen xeeti yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam amut kenn ku gën a fiir borom bi kon yéen na ngeen moytu njaalo ku góor ki na moytu njaalo ku jigéen ki tamit na moytu njaalo mooy nga tooñ yàlla ci xaqi keneen ndax yàlla moo la bind indi la shahwa shahwa mooy lan mooy bànneex ngay yëg-yëg waaye mën a sa yëg-yëg yooyu boob yëpp na ko war istimaal ci loo xam ne ne xalaat xam ne yàlla moo la ko daganal yàlla nag moo daganal góor mu am ñeenti jabar am ay taara loolu ay dagal yàlla yow nag boo loolu fi am benn lay doon loolu bu baax dafay doy waar lool loolu ñetti tuuf léegi kon yonent bi sallallahu alayhi fiir boo xam ne doomu aadama ko war a def mooy fiir bu yem nit ki nag war nañ di koy yee ndax ustaas wax na fi léegi ne summiya insaana insaanan li kasrati nisyaani ko doomu aadama di bëri lu muy fàtte te mujtama ñu nekk population bi ñu nekk ak jamono ji ñu nekk mënuñoo ñàkk mu ngi mel ni jotaay bi rek jaxasoo wunde waaye ñoo dem jigéen ñaa ngi ñii góor yaa ngi ñii il faut moo tax jamonante boobu nag dina am ay jabar jàmbur ci nekk ay jëkkër jàmbur ci waxtaan dina am këfante dina am reente dina am jëflante dina am fekkee na nag dafa am waay yoo xam ne ne dafa fiir bu ñëwee gis soxnaa nekk ci biir di waxtaan ak keneen boobaa mun na am sikki sàkk te sikki sàkk boobu laaj boobaa mu indil ko ay wax wax yooyu nag mun na dem ba bëri fekkee ne nit ki wax duñ koy wax wax du teye la na ko ah, attention gis naa nga waxaat nangam ak nangam ci place nangam lu tax ngay waxtaan man xam nga ne lii bëgguma ko boobaa yëf yi dafay war waaye boo ñëwee rek fekk ko foofu nga teg ko mbéy na ko lu tax ngay wax naan ay naa wax naan boobaa. képp mhm. dina am. Mhm. réeroo dina am. boobaa nekk waxtaan boobaa waxtaan dootu ko mën a amati ngir ñi nga xam ne am moo tax arab yi wax ne cent cinquante pour cent yoo gis cinquante yëpp lu waral seen tàqil koo am mooy machaakil yi nga xam ne day am seen diggante ci ñàkk waxtaan mu ne bëri na ay fase yoo xam ne am na ci diggante ñaari way dencee lu ko waral mooy ñàkk waxtaan lu ko waral mooy firaak góob lu ko waral mooy ñàkk déggoo waaye lépp loo déggoo nit ki ci bidaaya bi rek boobaa xàll dina am ci ñaari taraf yëpp ci kaw suuf wax naa leen ci kaw asamaan fii nga am na <coughs> ni ki iblis ak aadam bu ko yàlla waxee na ko lu ko sujjuutal mu bañ na lu ko sujjuutal na ko maagu gën ci kaw suuf tamit rey bu njëkk am ci kaw suuf tamit ku nekk xam ne ne diggante Haabil la ak Qaabil muy ñaari doom yi yonent yàlla aadama aadama mi nga xam ne moom la yàlla njëkk a amal ci kaw suuf mu wàcc ci kaw suuf bu ñëwee yàlla di koy may ay seex ba mu àgg ci Haabil ak Qaabil yàlla digal leen ñoom ñaar ñu saraxe kii saraxe pepp ak dugub kii rendi ngir saraxe yàlla nangul kenn ci saraxam muy Haabil bañ a nangul xaabil moom mi nga xam ne moo saraxe pepp bi kii rey moom da ko nangul loolu indil ko fiiraanga waaye fiiraanga gi dem na ba ëpp ba mu demee ba ñu war a am soxna xam ngeen ne yonent yàlla aadama xawaa jabaram ñaari seex la daan am góor ak jigéen ki génn ci ku njëkk ci moom lay jox kii génn ci ku mujj gi ñaari biir yi duñ bokkante takkante ku njëkk ku ca kooku mooy takk kële ca biir bëre ku nekk sa biir bëre takk ku nekk sa biir keneen xaabil xaabil nag moom ku nekkoon seexan waram bi moo gënoon a rafet bu mu benn biir moo moom kooku lay takk ñu ne ko léeg loolu loolu amut yow xam nga ne ni Zambie mooy beneen biir nga war a xaar nga takku waaye ki nga bokkal biir kooku doo ko takk te kooku ki nga xaar bi waroon a takk loolu ñëw koo keñaan yi bam rey ko kooku xaabil moom njëkk a rey ci kaw suuf lu ko waral mooy fiiraange ci keñaan loolu yàlla na yàlla musal ci fiiraange boo xam ne dafay dem ba ci rey. bon laqad saat islam ala ithaaril bënam wa ithaaril xal yàlla baaxee na ne lislaam ñi nga xam mooy diine ci yàlla dafa ñëw ngir laabal xol yi waaye dafa ñëw ngir laabal jëmm yi. moo tax yàlla wax ci alxuraan yawma laa yanfa'u maalun yawma laa yanfa'u maalun wa laa banuun yawma laa yanfa'u laa yawma laa yanfa'u maalun illaa man ata Allaha bi qalbin saliim mu ne am na bés boo xam ne alal amu fa njëriñ doom amu fa njëriñ ana lan moo fa am njëriñ mooy xol bu sell bon xol bu sell rek ci la yàlla di xool jaam pour baaxee leen pour bëggee leen amul fenn fu muy xool jëm yi moo tax ñu ne alqalb huwa mahallu nadratullahi mooy place bi nga xam ne foofu la yàlla di xool jàmm xool moom lay place bi nga xam ne foofu la yàlla di xool jàmm yàlla xool seen jëmm yi xool seen taxawaay xool seen taar ana fan lay xool mooy seen xool bu sell bu rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum mu ne borom bi subhanahu wa taala xool seen jëmm yu leer yi ak yu rafet yi xool seen alal yi ana lan lay xool mooy seen xol yu rafet yi ak seen jëmm yi moo am muslim bon nga xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla xool fenn ci doomu aadama lu du xolam xol bi nag bu yàlla bëgg ko yàlla yëkkati ko ca ay sa saalikono yi ndax nit ki bu fekkee na xolam dafa xat wala dafa naqari am na ay tëttal yoo xam ne la borom bi indi na ko pour nit ki wax ko pour loolu sell moo tax ñu ne fiiraange ay façon wax nañ ñaari waaye tamit am na yeneen wala nës li nga wax ne fiiraange ñu bëri dañ koy jaawale ak sikki saak ñu indi tafriqa ñu indi tegge diggante ñoom ñaar ñu ne riira mooy shuur mooy yëg-yëg comme nit ki bu tiitee yëg-yëg bu muy am wala bu jaaxlee yëg-yëg bu muy am mu ne noonu la fiiraanga mel ci doomu aadama ñu ne chekk tamit sunug la sikki sàkka ñu ne sunug la jikko la comme ni xalaat tëf nekkee sunug ñaaw njëf nekkee sunug noonu la riira loolu mooy fàq benn riira wa wa mooy différence diggante sikki sàkka ak euh, keñaan ak jalousie bon nga xam ne nga xamee ci ne chirk waaye tamit nga xamee ci ne dii la suluk la shuur la comme ni xalaq di amee xalaq mooy lan jaaxle ku nekk xam na ne yëg la xaw muy tiitaange yëg-yëg la riira muy fiiraange yëg-yëg la moo tax yàlla yëg-yëg boobu

si sa bu neex la dégg naa Cheikh Mouhamed Hadi nettali ko benn bés mooy alayhi salaatu wa salaam isla nee na isla kenn te sa bi bu naa ngeen bàyyi ko xel lool xista bi sax mën na tënk si waxtaan bi nga xam ne moom lañ bëgg waxtaan xista bi yàlla dafa amoon benn buur ba bëgg lu baax bu bëgg borom xam-xam yi. déglu leen bi. buur bi yàlla da koo nattoo mu baax lool bëgg borom xam ci jotaayam façon ku nekk dina fa nekk yàlla baaxee woon na ko benn borom xam-xam boo xam ne jotaayam rek dina ko wax nañu ñoo toog borom xam-xam boobu déglu. bu demee bay tàggatoo moom na ko maa ngi lay dénk muñ maa ngi lay dénk jaam yi nga baaxee leen bu leen lor heure buy dem rek loolu la koy nekk ba benn bés am na benn benn waay boo xam ne dafa nekk buur bi fii la wa borom xam-xam bi lool ngir jege gi nga xam ne jege na ko buur bi muy xalaat ne daal ci lan laa ko war a fexeel dër bu nekk rek mu xalaat kii daal jege jege bëgg ñu am war naa ko fexeel daal. ba benn bés waaye ci borom xam-xam bi génn rek mu ne ko tey dama bëgg nga ñëw reer ak man ma teral xam-xam xam ne képp ku ko woo dina dem rawatina mbokk jullitam bu ko wooyee mu teral ko tegal ko ay soble ay laaj ya xasaw lu nekk mu tegal ko borom ko tegalee laata muy pare rek fekk na dem na ci buur ba na ko man daal gis naa ne borom xam-xam bi na ko wax lool waaye moom du bañ la heure bu nekk rek muy wax ci yow lu bon lu muy gën a wax ci yow rek mooy ne sa gëm yi dama xasaw mu ne ah sama gëm yi dama xasaw yoo xam ne sama génne xasawut la ma ah kër bu loolu lay jëwee ndax xam nga moo la gën a yow waaye moom kër bu loolu lay wax daal ah baax na xool fekk invitation bi jeex na bi invitation bi jeexee mu ne ko buur bi oolu nañu ne ndam mu ànd ak moom mu ne ko ah yoo xam ne ne producteur dafa ragal laaj dafa ragal gémmiñ ko xasaw ci sa génn ñi ñuy tey pundar muy tey jëf pundar soble na nga fexe ba bi bu ko jege ah ba ñëwee toog ak borom xam-xam yi borom xam-xam yi sori ko ko ah dama jege si ne ko tax ngay tëj sa gémmiñ ah ba kii li doon wax dëgg la ma wax ne kii daf maa wax ne sama gémmiñ dama xasaw donc kii mu ngi dëggal li nga xam ne moom la waaj wax mu mere ko mere mere mere ba xamul lenn lu koy def lu dul bindal ko benn leetar ci jaraaf na ko boo demee ci jaraaf bi nga ko leetar ah, ah, yow loo jëlee ci buur yi mu ne ah naa moom ba pare rek mu jël leetar bi jox ah mu ne ko ah buur bi de moom saa yu bindee leen tamit danay maye yaakaar naa danay maye mbir bu rëy xam naa ne laa seen waxtaan bi nga xam ne ah waaw nee na tey mu daal di mu ne ko ah dama may lettre mu ne ko ah lettre yëpp yëpp moo ko may mu ne ko ah may ma ko rek ndax xam naa ne buy may rek daf koy jël bu bindee lettre rek daf koy may may ma lettre insté insté mu ne ko may ma lettre mu ne ko ah yow naa yaa ma defar teranga ba ma ñaanee teranga dama la koy may rek man xam-xam bi daal di jël lettre bi jox ko fekkee ne buur daf cee bind ne borom risaale bii di ñëw ci yow muy borom leetar bi bu ñëwee na ko rey na ko fees waaye na mu yónnee boppam waa ji tam jox jaraaf bi leetar ko joxee leetar bi mu ne ko ak buur si mu ne ko alal la mu ko buur bi moo wax kat naa la rey naa la fees naa la naa ko yónnee boobu. borom léeg-léeg dafa damaa juum borom leetar bi du man de am na keneen ku ko joxoon. borom léeg-léeg yow mii la ko wax. moo tax luy arab wala luy borom bi di wax sax yéen a néeg la fromage day fanaan. nit ki nag lu mu yéene rek loolu la yàlla di am yàlla may jàng may ko xam-xam may ko taar.